wax nañu lu leer que Macky Sall na fexe ba xam ne lépp lu def dans cette machination machiavélique pour jéem a Ousmane Sonko wala pour jéem fexé ba yaq digganteem ak sénégalais yi c'est voué à l'échec foog naa ne nag li mujj xew fani mom ñoko ñoo des audios fuités fuités qui ont fuité mais aussi euh, kilifa yu mak yo xamné ne ñëpp leen xam fi ñu

li ñu war a wax wax nañu mm-hmm. euh, ñu ngi naan sax i pare woowaat nañu Ndeye Khady Ndiaye euh, dëgg gémmiñ bu waxul dëgg wax fen mm-hmm. waaye li mu wax ci moom muy dëgg mm-hmm. mënuñu koo wax lool leneen lu dul li nga xamante ni moo nekk ci moom li mu xam doon nitu valeur ragal tooñ ragal ak mënuñu fexe ba mu wax leneen te loolu ñu ngi ko ci ñun jigéenu Pastef ñu ngi ko ciy sargal ndax valeur yi ñuy wut ci jigéen gis nañ ko ci moom mu dëggu ñu privé ko doomam menacé ko tital ko xoqatal ko waye mu taxaw fi mu taxaw ne mom du du du wax lo xamante day doon safaan ci ko xam xamaluko dara ci liñ ko bëgg a changer lo nañ ko euh, version ba sonn mu bañ ñu tek ko liñ ko tek kon ñun jigenu Pastef ñu koy ñu koy gërëm mais ñu koy féliciter en tant que jigen parce que jigen valeur la jigen moy société bu baxé société bi bax mais bu baxul société day société bi donc des femmes de valeur comme ça Sénégal soxla na waye nak euh nous euh danañu def procès ñu ngi len di xaar nous l'exigeons parce que mënuñu à nit mu tok nek à leur disposition de ko tukki tere ko dem mënuñu ko sax waye dafa fekk mu am ci lu mu nek waye bala muy jot nañu fexé ba xamné procès rek ño ño lekk avance ño wax ño togn ño micro aduna yëpp dégg leen nañu xamné dañuy bëri inshallah rabbi deug dina ci te dinañu xamni ku yalla toroxalul mhm. doomu adama mënu la toroxal mhm. dinañu xamni ku yalla tek loxom ci kawam mhm. so bëggé jamm andat ak mom te nga may ko mu def limu wara def donc ils ont échoué ils ont raté ce coup là parce que même dans la fomentation même dans le complot ils sont nuls on lima ma gis fii yëfi cuune laa fi gis kon dama na ah nañu delu ginnaaw bala muy wesso Ousmane Sonko mu sel mi Sénégal yëpp bëgg ko Sénégal yëpp diko xaar nous fexe ba mu yegg ba du yegg fi mu comme cinquième président à la magistrature